yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di faafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al wa ala alihi wa yi ñuy topp ci rajo Kepar FM fii ci kawlax ñu ngi dellusiwaat ànd ak yéen ci jotaay bi ñu bokk muy jotaay fatawa ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdallahi Sall mu féetewoo gaaral seen laaj mu feggoo ceeg cheikhan docteur Mouhamed Ahmed Lo mu féetewoo tontu seeni laaj tey ti jotaay di jotaayu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy cent quatre vingt dix émission di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu te nangul leen kon cheikhanaa dañ lay jox kàddu gi rek niñ ko baaxoo defee nga tijji ñu jotaay bi su ko defee ñu jublu ci liggéey bi bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa asxaabihi ajmaina amma baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu déglu ak fépp fu ngeen mën di nekk noo ngi del siwaat kon ànd ak yéen ci jotaay bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko gannaaw buñ nuyoo Cheikh Abdallah nuyu Sëriñ Faafa mim det na ci xarala gi di nuyu mboolem mbokk déglukat yi kon Cheikh Abdallah mën nañoo jublu ci liggéey bi bismillah alhamdulillah al ustaz alika nee na dafa am ay baat yoo xam ne dañ koy faral di wax ci mbirum sey wala suñu takk sey mu ne bii di assadaq ak almahru ak rubu dinaar ñu laajte ndax baat yooyu benn la wala am nay teqale alhamdulilah ok eh, wax na dëgg am na ay terme yu ñuy faral di jëfandikoo ci fiq di ko jëmale ci li ñu tudde can can nag mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne góor gi moom lañ koy laaj ngir ñu fas sëy bi mooy li daganal ànd gi loola nag dañ caa sopp moo bañ a lu bari yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne sëy yi ëpp barke mooy sëy yi gën a néew ak can loolu sax moo waral tudd rubu dinaar benn dinaar euh, ab kaaram loola lu néew néew la ci alal ñu soppoon ak can bañ koo ëpp kon ak can bu nekkee ci diggante ay dix mille francs ba ci vingt mille francs ba ci trente mille francs nga xam ne mooy la ñuy tudd ca jàkka ja loola sopp nañ ko suñ ko joxee nag bañ fas sëy ba ba noppi nit ka soxnaam la yor lu mu def ci moom ci teraanga loola lu lislaam di bëgg la waaye lii nag day waru gar woo xam ne lu munta ñàkk la euh, su fekkee ne bàyyee wuñ ko ko moom da ko war a joxe su ko amee su ko amut it daa war a nekk ci aw loosam ba keroog mu koy am can moom yi nag néewal googi moo waral turu rubu dinaar bu dee ci arab it dañ koy tudd al sadaq di ko tudd it al mahar lu ci nekk aw tur la wér ci kàllaam ak arab woo xam ne rek li muy firi lenn lee mooy can wallahu taala alam jazakum allahu xeyran cheikhana adama kan nee benn waaye ngi ñu jox ko alal ngir mu war koo jibbal keneen nee mu sàggan ca nag lekk ko waaye da caa sàggan joxu ko boroom joxu ko boroom ba kooka wàññi ko kam ko waroon a jox wàññi mu ne nag su boobaa kooku nu war a def alhamdulilah alal joo xam ne day alali jàmbur la juñ teg ci sa loxo ne la nga jox ko boroom nga ne ci kaw suuf boroom ci kaw suuf nga mën ko ko jox te joxoo ko ko ngir yeexe ko ba mu génn àdduna loolu de ak tooñaange la maanaam jooyoo na ak maandu te wax dañuy ne maandu mooy ictaau kulli di xaqin xaqahu min gayri taxiir boroom xaq ja ñi jox ko xaqam ci lu dul di ko yeexe lool moo dig maandu te lu jooyoog loolu rek tooñaange lay daal di tudd su fekkee dañ ko ko jox te munu ko koo jox daa war a joxe ngànt ne awma jot wala mu ne ko seetal keneen faatug waaja nag du tax alal ji lew ko day seet ña ko war a donn mu yóbbu xaq jooje teg ko ci seeni loxo te jéggalu boroomam ndaxte lee ñu jéggal ko tooñaa ngay yeexe jooji mu def yàlla mën ko ko jéggal wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana laaj bi ñàkkul jaaroon na fi waaye xaw naa yàgg gi nee na ndax dagan na kiy julli farata mu topp ci ginnaaw koo xam ne day naafila alhamdulilah mu koy dagan na kiy julli farata muy julli ci gannaaw ku naafila la ko daganalit mooy am gum am ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa mu yëg ko te terewu ko ndax xam nga ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy lu wax wala mu jëf ko wala ñu jëfe ko te terewu ko Muaaz ibnu Jabal radiallahu taala anhu da daan timis ak gee fa yonente ba sallallahu alayhi wa ba ñibb ci koñam ñi di ko xaar ci waxtu gee su dikkee jiite leen gee te fekk julli woon na ba noppi farata ji nag xam nga ki ko xas joxe ba noppi su ko dee julliwaat day naafila su ko defee ñoom ñu julli ci gannaawam ca la doon guddale njàng sax ba sàmm ba xaw caa fitnawu wu ngir yàggaayu julli ga mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kalaame ko ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam yedd ko ci yaraanga ju metti wax na fattaanun anta yaa Muaz ndax da ngay fitnaal nit ñi nag Muaz jàngal saar sàngam ak saar sàngam tuddal ko ay saar yu gàtt lañ ciy jëlee rek mooy noonu mu ko teree guddal ga su fekkoon ni jiite waat ñoo xam ne julleeguñ seen farata dafa daganut kon loola la koy jëkk a tere waaye nag loolu yëg na ko te terewu ko ko ñu xam ne loolu kon dagan na wuute lool nag ak li lenn ngëri fiq di wax am na ci ay ngëri yoo xam ne dañuy wax ne kuy ji kuy julli naafila mënta jiite kuy julli farata waaye njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam taxaw rek njàngale yi ci des yëpp mu ca juyoog moom da ngay daal di féete suuf njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di féete kaw naam biram ba day laaj dafa dégg ñuy ñaawal watu bisu àllarba ak bisu dimanche muy laajte ndax loolu lu sharia saxal la mbaa watu day xamaluñ ko nag bis boo xam ne dañ naan bis bu watu la ak bis buñ dul watu loolu day dugg rek ci biir mbiddaay yi nga xam ne dafa tasaaroo ci société bi bis sàngam la ñuy sangu diisul sangu bis sàngam bis sàngam la ñuy watu diisul sàngam bis sàngam la ñuy tukki diisul tukki bis sàngam bis sàngam la ñuy takkub diisul takk ab bis sàngam xam ne yooyu doomu aadama yi ñëw ko tëral seen bopp rawatina ci suñ société bii noonu waaye boo génnee ci yeneen société yi jullit yi doo fa fekk lu mel noonu tax ñu xam ne du lu mooy nekk ci seeni yoxo rek yooyu la ñuy wutal lu mel noonu nga xam ne ñoo koy defal seen bopp ak a bàyyi waaye kenn ku nekk xam na ne bis bu ñuy juddu amut bis bu nekk nit ñaa ngi judd bis bu ñuy faatu it amul bis bu nekk nit ñaa ngay faatu ak yu demee noonu nga xam ne sunu borom tabaraka wa moo koy defal boppam leneen li ci des mooy su fekkoon ne tukki bis sàngam day wàññi dara kon ñi wàññi ci àdduna kenn du xam nu mu toll aéroport yi ci àdduna boo ca taxaw rek roppalaan yaa ngay naaw yee ca des di wàcc ci lu amul bis te it ngay dem di àgg fañ jëm di dox seeni yitte di delluwaat ci seeni kër ay aada ay cosaan ak biddaa yoo xam ne yu yàgg la yoo xam ne diine da koy tere day mel noonu waaye jamono it nag da ko weesu jekki di ko fas ba ci suñ jamono tey jii moom ak dellu gannaaw ku wér a wér a wallahu taala alam athabakum allahu cheikhana mbokk mi Mouhamed Fall lañ koy wax di wootee boori Kaarang nee na benn waaye ngi doon koo xam ne ku bëgg sunna la di ci góor góorgóorlu di ko xencu waaye nag dafa juum ba tàbbi ci euh, julli goo xam ne moom biir na ko ni di jullik sunna saxul ci sunna mu bokk kook nit ña jiite leen ci sax nag waaye nag xam na ni njuumte la moom xam na ni loola saxul may kook suy tuub naka lay tuube alhamdulillah ki nga xam ne borom bi tabaraka wa ko baaxe bam xammee sunna ak biddaa war na sant yàlla ci xam googi mu ko xam waaye it nag war naa góorgóorlu ba xam googi mu ko xam jëfe xam-xam boobu tegu ca xam-xam boobu nag nam koy mën a jëfee nenn rek la mooy di daw lépp loo xam ne ci biddaa la ci xeetu biddaa yi jéem a jàpp ci li nga xam ne mooy sunnatu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam roykatub sunna ak toppkatub yàlla saa boo xamee ne juum nañ bam def bidaa moom mi doon roy sunna wala mu mooy yàlla moom mi doon topp yàlla dara sësu fa rek loolu daal di tuub tuub loolu yi ndax dund gi lu gàtt la te xamut fu mu yem ginnaaw xam na ne wóor na ko ne ci biddaa la dugg def ko na daal di gaaw tuub loolu rëccu la weesu woon te fas yéene caa bañ a dellooti ba faw nag ak lu mën a xew ca loolo rek la tuub ga di mën a wére su ko defee di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu saxal ko ci siraatul mustaqim te bañ a dellu ci lépp loo xam ne day nuru biddaa wala ay caaxaan wala ay moy yàlla wala sax ay bokkaale wallahu taala alam ahsanallahu ileykum cheikhana mbokk mi day laaj nee na léeg-léeg muus ci kër daat fay jur mu ne su ko defee ñu dajale doom ya dugal ci saaku yóbbu ba ca àll ba rek ñu sànni fa loolu bari nañu koy def day laaj nag ndax loolu dafa dafay dugg ci eh, xadis ba wax ne ni dugg na sawara ci muus moo xane da ko téye joxu ko mu lekk joxu ko mu naan bam faatu mu ne ndax mu ne sa koo gam-gam lekk xadis boobu wala déet alhamdulilah muus yooyu day su fekkee ne bi mu leen dajalee di leen yóbbu fom leen yóbbu fuñ mën a dunde la xam ne luñ lekk dana fa am suñ bëggee naan luñ naan dana fa am su boobaa deesul jàpp ne daf leen a faagaagal wala mu rëy leen waaye nag su fekkee ne ci àll bu xonq cooy la leen sànni boo xam ne wóor na ko ne fii moom duñ fi dund ndax lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nekku fa su boobaa ba loolu moom bàkkaar bu rëy la boo xam ne war na koo tuub te bañ koo defati ndax loolee yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne que tëjoon moos ma jox ko mu lekk jox ko mu naan moo nekkoon sababus ak tàbbeem sawara kon nag ku boole jalub muus def ko ci saako ba ci àll mu wóor la ne fii duñ fi lekk duñ fi naan taw naaj wu tàng la waxoon faatu lañ fiy def su boobaa rey te loola musiba la dara jaru ko naam barakallahu fiikum cheikhana soxna Hawa nee na kii nga xam ne dafa julli fajar ba noppi toog ci jullekaayam di tudd yàlla mu mbaa muy jàngal xuraan ba jant génn ba yëkkatiku mu jullee ñaari rakkaam am na yool bu rëy boo xam ne sharia dig na ko ko mu ne kooko su fekkee ne eh, ci diggante bi def cee jug dafa jug fam toogoon ngir ab aajo boo xam ne rek bu jege la su dee jigéen lu mel ni doomam di jooy mu dem xool ko ak yu ko nuru daal mu ne ndax jug googu mu jug day yàq yool bi mu naroon a am wala déet alhamdulilah okay yonent bi tudd na ab yool ci képp koo xam ne mën naa def loolu muy soo jullee toog fa ne ci say tudd yàlla ak say jaamu yàlla ba jant bi fenk nga julli ñaari rakka door jóge loola bari na tuyaaba ki koy def nag su fekkee ne dog na lim doon def ngir ngant aajo joo xam ne ju mënta ñàkk la loolu duñ ko jàppe ak dog dañuy jàpp rek ne ba tey moom jataay ba mi ngi continuer ci misaal su toogoon ba mu yàgg mu yëg ne daa war a yeesalum jàpp mu jóg dem ci toilette yi jàkka ja su fekkee jàkka ja am na toilette su ko amul mu dem ci kër gi su fekkee kër ga itam jege na fa yeesal am jàppam del si toog su boobaa itam loolu day duñ wax mukk ne daa bàyyi jataay ba ndax bàyyiwu ko ci ak tànn waaye de ko bàyyi ci ak loru defi loo xam ne lu mënta ñàkk la noonu yi mu ko waxee it misaal la ci jigéen ju yëg ni doomam am na lu koy fitnaal ba tax muy jooy mu dem seeti ko mu régler mbiram daal di dellusiwaat kooku it loolu yàqul dara inchaa allah wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi nee na nit a ngi fekk dafa war na lor muy laaj ci soxna soosu lan moo war a doon yiddeem yiddaam ndax ñetti weer la mbaa day xaar rek ba euh, yàlla muccal ko alhamdulilah ki nga xam ne dañ ko fase muy téeñ ji te fekk daa tollu diggante maanaam dafa ëmb kooku iddaam day jeex rek saa boo xamee ne ëpp ëmbam imbiku na moo xam nag daa dem ba ëmb ba mat mu daal di mucc doom ji juddu wala daa dem ba ci diggante bi avortement dab ko ëmb ba yàqu foofa la ca biir ba daal saa bu génnee moom daal nay jeex ca bis boobee tabaraka wa taala nee na wa ulaatu l ajaluhunna an yadaana xamlahunna ñi nga xam ne dañoo yore ay ëmb seen dig nga xam ne seen idda ca lay jeexe mooy seenu ëmb yem fa saa boo xamee ne rek ëmb ba génn na idda ja jeex na noonu la ko alquran waxee wallahu taala alam ahsanallahu ileykum cheikhana Samba Ka di wootee caawaando day laaj nee na ndax ci sharia dafa am ay waxtu yoo xam ne di ca nelaw dañ koo sib su dee dafa am eh, ki nga xam ne gëmmantu gëmmentu moo ko dab ci waxtu yooyu naka lay def alhamdulilah aw waxtu woo xam ne dañ naan waxtu sàngam ku ca nelaw dañ koo sib day xaw xawma ko waaye nag nit mën naa am diggante boo xam ne dañ koy wax ne ko fii boo fi nelawee sib nañ ko ndax boo nelawee farata mën na la raw comme tollu diggante boo xam ne xam na ne moom mi li dox digganteem ak julli tuuti la bu dem di tëdd di nelaw tam wóor ko ne bu nelawee du mën a yeewu julli ci su boobaa yooyee nelaw moom nelaw yi santaane sharia la su boobaa dañ koy tere waaye nag waxtu woo xam ne bu ñuy tere la moom loolu xamee su ko ànd ne su fekkoon ne loolu mu wax su fekkoon ne waxtu wu mel noonu am na waaye am na ku ci nelaw it kenn du ko forcé nag doo nelaw mukk ndax ki xas dem ba ngëm ti jàpp ko moom sooy boo rek mu jéem a noppalu te su waxtu jotee mu wut lu ko yee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu naafile ci guddi orientation yi mu joxe def ko ci boole mu ne su kenn ci yéen yégee ne ay nelaw not na ko na dem noppalu na dem tëdd nelaw moo gën muy julli di tudd yàlla di saaga yàlla faf to fekk yëgul ne day saaga maanaam day eh, tudd yàlla la ci jublu maanaam mën naa dem ba la muy wax am xelam àndatu ca muy wax loo xam ne lu juuyoo ak lam kon a wax la loolu moo tax saa boo xamee ne nit ki am xelam nekku fa nag ci lu wér a wér wér jaamu yàlla ya na ca teey ba am xelam delsiwaat waaw xata taalamu ma taquluun fekk demu leen ba mën a xam li ngeen di wax jarul ngeen di jëm ci eh, jaamu yàlla gi teeylu leen ba xam li ngeen di wax ngeen door ca dugg te nelaw dafa bokk ci yi nga xam ne day tee nit ki eh, di xam li muy wax kim not moom daanaka moomatul boppam moomatul aw làmmiñam bu dee wax loolu moo tax même sàngara bañ koy araamal eh, te di ko def ci ay étape am na étape bu mu toll boo xam ne dañ ne su fekkee ne yaa ngi bëgg a defu jaamu yàlla bul naan sàngara ndax eh, da ngay bàyyi ba yeewu ba xam li ngay wax nga door koo wax mooy loolu yi ma junj sànq ci laay ji wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana góor a jóob di wootee ba Dakar nee na lan mooy àtteeb wax rabbi xfir lii gannaaw bi ki waxee subhaana rabbiyal aala ci bim sujoote te gam teg rabbi xfir lii mu ne ndax loola lu wér la mu ne yi ndax wax ko ñetti yoon loola dafa doon loo xam ne mënta ñàkk mooy subhaana rabbil ala wax ko ñetti yoon ndax lu mënta ñàkk la wala benn yoon rek doy na alhamdulillah li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci zikru ki nga xam ne dafa sujjoot day wax subhaana rabbiyal ala ñetti yoon su ko waxee ba noppi nag la fa mooy sañ naa ñaan ñaan yooyu nag rabbi axfir ci la bokk moo tax ñëw ne ci leen ci ay riwaaya sax subhaana rabbiyal allahuma akfir lii waaye loolu wax subhaana rabbiyal a'laa ji ñetti yoon ba noppi door di wax loola moo gën wala geneen ñaan goo xam ne bëgg na ko wax loola it nag tënkuñu ko ci ne ci ñetti yoon la koy wax wala ñeenti yoon soo xasee weesu subhaana rabbiyal a'laa ji nga xam ne ñetti yoon la koy wax ñaan yi cay tegu mën nay ñaan rek di wéy ñaanu njëggal ñaan leneen ñaan leneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fa innahu qaminun an yustajaaba lahu ki sujjóot day ay ñaanam mooy ñaan yi gën a yeyoo ci ñu nangu ko su ko defee foofa moom palaasub ñaan la la ca mat a bàyyi xel rek mooy xam ne su fekkee yaay julli yow dong sañ nga fa nekk di ñaan nu la neexee ak lu mu yàgg-yàgg waaye nag bu dee da ngay jiite mbooloo moo xam ne <clears throat> aw nit a nga ci ñoo ñii dañoo màggat ñii feebar ñii yàkkamti continuer di ñaan say ñaan rek ci su jóot loola mam ne ñu mën a fitnaal moo taxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam boppam nag fekkee dee julli julli ko neex mbokk mi nee dafa jullee ci am jàkka àjjuma dégg ilimaan ji di wax ni ku jullee ci kanamu jàkka ji amoo julli su fekkee ne amoo fenn foo taxaw fu dul foofu li jaadu mooy nga toxu dem ci beneen jàkka joo xam ne di nga mën a jullee ci ginnaaw imaam nga jullee foofa waaye jàkka ji fees mënta daganal nit ki jullee ci kanamu imaam mu ne loolu nag jaaxal ko lool ndax moom déggoon na lu wuteeg loolu muy laaj di gën a leerlu ci jotaay bi Eh, lan mooy eh, lii gën a wér gën dëgër ci masala moomu alhamdulillah roy imaam day la cay cosaan mooy imaam ja day féete ca kanam nga féete ca gannaaw soo demee ba loru ca ngeen tolloo waaye nag julli ci kanamam moom doonut la nga xam ne luñ tànn la ci ak su fekkee pexe am na noonu waajooji waxe am na ay ngir yoo xam ne noonu lañ ci tarale lu ni ngirum alxanaabila ngirum ahmad ibnu hanbal ñoom dañuy ubbee ne képp ku jullee ci kanam imaam rek sa julli yàqu na waaye nag ngër yi ca desit ànduñu ci ak ñoom ndax wax dëgg yàlla amul dalil bu fees nag buy wax na julli ga moom day yàqu loolu moo tax daal ku ko mën a wattandiku na nga ko wattandiku bul ko def mukk ci dudul ngant waaye nag waxtu ajjuma jot na nga dikk fekk jumaa fees na ba amu fenn foo taxaw lu dul ca kanam ñu ne la faaw nga dem seeti jeneen jàkka te amaana jeneen jàkka mën naa nekk fu sore sori wala mu bañ a am sax léeg-léeg ci dëkk yi loola moom ak xatal la ci loo xam ne sharia mën na koo yaatal ndax sharia moom saa boo xamee ne xat na rek mu yaatu saa bu bunt tëjoo rek mu ubbi fenêtre kon suñ demee ba ca gannaaw amatul fu nit mën a jullee wetuk ndeyjoor ga goog càmmooñ ga maanaam amatul fu ñuy jublu fuñ mën a taxaw nga xam la fa sës rek mooy wetuk xibla ga su boobaa nag la fa sës nag mooy taxaw foofa julli fa waaye jéem a góorgóorlu nag balaa jumaa mel noonu fekk nga ñëw ba am fa place loolu mooy lu jaadu ci jullit bi nga xam ne itteem na ko naam athaabakum allahu cheikhana ci mbokk mi dey laaj nee na ndax ci sharia dafa am âge boo xam ne su fa nit ki yeggee dañ naan kii kat sharia toppeetu ko dara teggi nañ xalima ci moom dee su ko bindalati dara wala amut su dee am na ban âge la alhamdulilah âge boo xam ne dañuy wax ni nit ki kenn dootu toppe dara amut waaye nag ci situation nit ki lay dellu rek ki àndatul akum xelam daal ak lu mën a yóbbu xel ma su fekkee ne ak ndof la wala dafa dem ba àgg ci war a naag naag ba xàmmeetul ndeyjooram ak xam xàmmeetul ay doom ak mag ay waajuram su boobaa kooko teggil nañ ko xalima gi moom kenn bindalatu ko dara su fekke ku doon def lu baax la nag xalima ak tuyaaba moom dana fa nekk ba tey waaye xalima ak lañ ko dootul teg <coughs> loola nag mën naa teel man naa yeex waaye nit ki nag su àndoon ak sagoom di dund te dara dalu ko yor wér gi yor am xelam ba am téeméeri at wala ñaar téeméeri at wala ñetti téeméeri at it su boobaa nag day jaamu yàlla rek te xam ne li ko santoon lañ continuer di ko sant yañ ko doon tere lañ koy tere ba tey kon ajuwul ci ay at waaye mi aju ca melokaan wa ak wér yaram ga wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi day laaj nee na léeg mu dégg ko wax ni yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ci koo xam ne faatu na nee yàlla nañu yàlla taas ci barkeem mu ne wax jooju ndax wax ju wér la wala déet alhamdulilah xam na waxiinu yàlla nañu yàlla taas ci barkeem day waxiin la woo xam minees na ko ci làmmiñ yi waaye nag eh, lu koy firndeel ci ñaaniinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaaniinu ay saxaabaam ak ñaaniinu mag ñu jëkk ñi ci lislaam muy as-salafu saalix kenn ku ci mas a wax ne yàlla na yàlla taas ci barkeb abu bakar siddiq wala omar wala osman wala ali loolu dajawu ñoom ñoom dañu jëkk ñoo ñi nga xam ne dañoo jànge woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale noona itam seeni taalube lañu doon dund ci seenu jaamu yàlla ak seenu doxin ak seenu ñaanin loola mooy siraatul mustaqim kon euh, lépp loo xam ne lu ko jàdd la jullit bi war na caa teey war na caa def ndànk fexe ba euh, jaare ko noo xam ne dana dëppook seenu doxin te lee bu dee ak ñaan sunu borom tabaraka wa taala nangu ko te it bàkkaar bañ caa jóge ndax jàdd seen yoon it indi bàkkaar te ka tàllali yoxoom boroomam bay ñaan bu sañoon la muy ñaan day faju mu jële ca tuyaaba waaye langay ñaan fajuwul ba noppi nga jële ca bàkkaar nag fetal moo koy faral di indi te fetal mooy rek li ngay dégg nit ñi di ko wax ci mbedd nga jël ko defe ko say jaamu yàlla ak say ñaan wallahu taala fikum cheikhana mbokk mi nee na yilimaan joo xam ne Eh, day faral di njabaraan waaw ah, da koy da koy def daal eh, bokk na ci li koy màndargaal mooy da koy defal ay eh, bërikat ba tax am ci mbokk yi ñoo xam ne suñuy jubee jàkka ji ba séen ko ñoom su boobaa moom dañuy wëlbatiku dellu ko seen kër julli ñu laajte nag ci situation bi mel noonu ban taxawaay la ci jullit war a am. alhamdulilah euh, xam nga nag wàllu jàkka Cheikh Abdallah moom ñàkk gee organisé wu foo ko takk àgg na fa soo fekkoon ne lu tegu ci yoon la ci ni lislaam santaane comme xas wér na yaa ngi jëfandikoo lu ñuy tudde ak njabar kooku moom waratoo nekk imaam su demee bay nekk imaam nag ba noppi di jëfandikoo yooyu nga xam ne àgg na ci di ko defal waa làmb nag su boobaa day la ca war a sës nag rek mu jële ko fa su fekkee ne ña ko xam nañ ni mbir mi grave su fekkee dañ koo xamul nag réere ko nañu laaj boroom xam-xam yi wala su fekkee mënuñu ko faa jële nag su boobaa mbokk yooyu noonu ñuy def rek moo fa sës fekkee jàkko ja daa am ay imaam yu bokkul kooku doon ca kenn suñ gisee muy jiite rek ñu rocc ko ndànk dem seeti jeneen jàkk suñ demee ba gis ne kii moom jiiteetul kenn ndax saa bu taxawee ci kanam nit ña danañ génn jàkka ja su boobaa moom ci boppam dana respecté boppam toog këram wala mu seet ne nu muy def wala mu tuub wala ña ko fa tegoon jële ko fa teg fa keneen waaye ala kulli xaal lañ bëgg a wax daal mooy kooku moom matatul imaam wallahu taala alam alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi kon mel na ni li ñu tiimoon tey ci ay laaj eh, fii lañ koy yemale mel ni li ñu digaale woon ak yéen ci waxtu yi yegg nañ ca ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dolli ñoo defal tawfiq nangul ñu nangul leen dolli barkeel liggéey bi dolli ko dëgëral waaye cheikhana mi nga xam ne moo koy taxaw it yàlla dolli ko sàmm dolli ko xam-xam dolli ko wér kon cheikhana dañ lay jox kàddu rek nañ ko baaxoo defee nga tëjal ñu jotaay bi dig mbokk yi daje incha allah ajuma ji di ñëw ci seen beneen jotaayu fatawa fii ci rajo Kepar FM 99.7 allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam di sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko Cheikh Abdallah nangu seeni ñaan ak seeni jaamu yàlla ak sunu yos te defal ko mboolem déglukat yi ak mboolem déglukat yi fatawa xanaa di tàggoo foofu rek kon ni ko waxee ba ca dig yi nga wax di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu àggale nu ca ci ak tal akuk man wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh qul ma inda allahi xayrun min allahi wa min attijaara